nangam waaye parce que am nga tur sant wala am nga ku mën a ragg sa ginnaaw am nga njiit bu nekk sa ginnaaw nga xëy ñu ne la waa non dafa feebar yóbbu ko pavillon spécial xëy benn jour génne ko liberté provisoire liberté provisoire deux ans trois ans quatre ans boobu ban liberté provisoire la am ku sàcc ginaar ñu jàpp ko loxo ci poche jugé ko ne ko dañ lay tëj ci kaso bi euh, pour nangami weer pour dootoo ko defati ñu bàyyi la ci kaso bi fàttale fa. est-ce que ki sàcc ginaar dafa yées ki sàcc alalu askan wi ki sàcc ginaar mën na am sax ganaar ga mu doon sàcc donte du ma ko cautionné parce que boobu amul lu mu lekk ci këram kële am na lu mu lekk ba géex am lu mu jëndee boison ba doyal taal climatiseur euh, climatiseur am buñ koy dugal sax ci kaso ca néeg ba gën a neex wala ba gën a sedd lañ koy dugal mu am fa ak ñaari nit wala ñett ñu mu bokkal kaso bi wala néeg ba ci booba temps ka sàcc ginaar ñu dugal ko ci foo xamee ni dina ko bokk ak deux cent personnes ba kii day tëddee nii teg boppam fii kee tëdd teg tànkam fële rangé la heure heure tëdd kaso yi nañ ko xoolaat parce que lay tax ba euh, li ñu war a xool ci ci justice li ñu ci war a xool bari na c'est pas que def nañu ay assises 2018 euh, def nañu ay waxtaan 2000 nangam lu ñu war a jooyanti dañ koy jooyanti au quotidien te pour man c'est important ñu wax yu mel noonu. bàyyi la rek waaw nga daal comme ça waaw mi ngi noonu. damay damay jàll.